salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah la waaw Laye Cissé la bon Laye Cissé mën neen wax ni tey jii yow yaay créateur groupe euh, Guédiawaye FC Zamangage mhm. bon ñu laaj la lan moo la poussé pour nga créer groupe boobu waaw di nuyu ñëpp di leen remercier tamit di leen féliciter vraiment ci liggéey bu rafet bi ngeen di def parce que tamit yaakaar naan tey ku nekkul Guédiawaye tamit nekk ci à l'extérieur ñu ngi xool information grâce à euh, info Guédiawaye action info donc euh, di leen remercier di je vous côté vous waaw question bi tamit trop parce que euh, groupe WhatsApp depuis 2016 le 25 octobre 2016 donc il y deux ans li ma si dugaloon nag li ma de que dañ nekkoon comité bi nga xamante ne woon dañoo dañoo dañoo restreint woon waaye tuuti la ñu woon par rapport ak yeneen yeneen yeneen euh, club yi nga xamante dañ daan mobiliser wu di ñëw ci SA di def lépp. man woon pourquoi pas du ma am benn idée boo xam créé groupe bi nga xam te ne dinañ retrouver doomu géejawaay yëpp ñu mën di jàppale suñu équipe pousse ki idée bi daal créé woon idée bi la pour euh, supporter yéen a retrouver waat pour jàppale seen équipe pour mu jëm ci su ma biir wax nee nga presque deux ans ni nga créé groupe bi mhm. donc mën leen wax groupe bi am na avancement mhm. groupe bi tey bu ñu xoolee lan mooy avantage ak lan mooy inconvénient groupe bi waaw groupe bi bon su ma gisee euh, deux ans yi mën naa ni li ma koy analyser mooy ci benn côté côté positif daal mën naa ne ci lañ gën a kii parce que ci réalisation yi mën nañ jàpp ne lim créé mooy li gën a mooy lien bi nga xam am na si diggante bi parce que groupe bi tey ñëpp famille lañ nekk ñëpp famille parce que dafa regroupé 54 ASC yi nga xam ñoo nekk ci Guédiawaye yëpp am nañu représentation groupe bi donc du groupe bu ndaw du ba pare nekk nañ plus de 200 et quelques personnes ci biir groupe bi donc tey bu ndee ba créé lii naa ne avantage parce que am na lu bëri loo ko fi à Guédiawaye réalisation rafet mooy euh, boo xoolee léegi 3 ans 4 ans ci ginnaaw ak léegi xam ni comité supporter bi am na changement bu baax a baax a baax ci côté mobilisation ak engouement bi nga xam te ñi ñëw ci stade loolu grâce ak groupe WhatsApp te tamit vraiment di ci am fierté quoi. mais groupe WhatsApp nan la demee euh, dafa nekk supporter bu ASC bu nekk dasee am. wala da ngeen da ngeen di lancé rek ku bëgg dugg dugg. waaw bon idée bi nag moom li ma waxoon au rek mooy que ne dañ ko doon yaatal. parce que dañu jàppoon au début que ni Guédiawaye dafa yam benn côté kese or que loolu amul moo tax ñu créé groupe bi pour ñëpp ñëw dugg ci groupe bi tëjuñu ko c'est ouvert pour tout le monde ñëpp ñi nga xam te ne doomu Guédiawaye rek muy autorité ñëpp ci ci biir groupe bi parce que boo xoolee groupe bi du ay supporters Guédiawaye kese ñoo fi nek amna na ñoo xam ay autorité la ñu ci groupe bi ay ay ay personnalité ñu ci groupe bi donc groupe bi dafa regorger Guédiawaye yépp dans son ensemble ñepp da ñu ci biir 53 ay yëpp amna nañu représentation ci groupe bi donc Guédiawaye la daal am nañu mais lan ngay lancer wa Guédiawaye waaw di leen wax ne ni groupe bi mu ngi ni seen groupe la ah groupe bi yaakaar naa ne dañ ko créé pour doomu Géejawaay yëpp benn bii la mooy jàppale club bi jàppale Géejawaay football club parce que moom mooy suñu équipe faño ASC yi dëgg la ASC yi moom lañ am ku nekk ci ASC lañ dëkk mais équipe bi nga xam te ne vraiment mu lañ gën a mën a jàppale mooy ASC Géejawaay muy Géejawaay football club donc maa ngi lancé appel di woo ay ASC yëpp ñu ñëw autour de Géejawaay jàppale équipe bi ñu gën def ni Casa def ak AS Pikine ak yeneen suñu yeneen naataango yoo nekk ci yeneen club yi Guédiawaye mën nañ ko am nañ ko donc maa ngi woo daal di appel supporter yëpp ñu ñëw jàppale comme ni ñuy jàppale seen seen seen ASC ñu jàppale ko club bi. merci beaucoup